bëre ngi noonu tos daf du weex day faju bàkki rasulaa mais mais njaga njaga sa jour ñu gis ngay doxantu nii xam nga si si mbeddu koñ bi nii lan la njaga lan la lan laa ilaaha illallaah mais njaga wuy sa supporter yi njaga wuy sa supporter yi njaga wuy sa supporter ah. waaw ah mais fils. si combat yi. waaw. tiseetu kan nga sol nii. tiseetu njaga. waaw. fils bi. njaga day daan bu ñu xeexee. suñu xeexee bëree. ay la waa njaga. njaga. waaw ñàkk dafa may deux minutes ma dem. deux minutes waaw wax maa ngi nii dem gàlle nii salaamaaleykum. sama gàlle laa jëm. Diakha dem solo ji ne. waaw da ngay dem ngeem ji. waaw ah. damaa koy fajal ji nga géej laa dem naa géej dem dérangement. mais Diakha si suuf gi dem géej loolu moom baa du la sonal. waaw loolu dama sonal xamuñu ay sportif dem naa géej def dérangement yi may war a def lépp. ah dem naa gàlle ndékki ba suur. ah. waaw instant damay dem. nga dem ngemb ji jàkkaarloog maire bi tàllal ko loxo mu ñaanal ma ma dem xare ji. gars <laughs> yi mais tey njaga nga gëj ñëw stade. waaw gëj a dugg stade. Eh. ngemb ñëw takk bëree. te boo duggee stade. lan lañ nar a xaar si njaga. waaw li a xaar bari na yi tey téléphone bi instant yi. gars yi la la la manqué réseau moo tax gis nga punkal gi ma yor. allo. yéen eh, bañ a manqué réseau moo tax. maa ngi leen di ñëw maa ngi tali karab di ñëw. gaa ngay xaar rek. mobilisation bi. gis nga booy ñu ngi waaj ah. doole ngi noonu. ah. ma doxaale la de ah. ma dox jëlaale la de ah. tey njaga doole. mu ngi tëdd bi. yéexee. jaga gi noonu de. mburu amoo carte mburu amoo carte gi noonu de jaga doole ah. lu ngeen teg fan. lu yomb ngeen teko fan. lu yomb non bërëb ñoo ko mën. ina ko mën ay ndaanaan lañ. man mi sax gaa lañ maa war a liggéeyal combat am bëre. day wax li ah billaahi. xanaa am bëgg. ah maa moom ñoo bëgg écrit. déedéet waay. suñu grand frère la. tur bi naka la. ah man la ah man la Talla. Talla. Talla doomu Mor la. Talla doomu Mor la. waaw. ah. billaahi. yàlla baal la. gaa yaa ngi ñëw. yaa ngi bokk rek. yeexee. yaa ngi war a bàyyi xel bu baax. yeexee. déedéet waay. jaga <laughs> ngi noonu de. waaw. jagal l'international. borom dëkk bi waaw eh, tey suñu mbër bi mbër askan baa ngi de mbër amoo ngi nii mbër géejawaay ngi nii jaxa ngi nii di waaj a mobiliser pour dugg fële nga xam ni ni ma arène nationale jaxa jaxa ngi noonu de salaamaaleykum baax na mbër gars yi ne da nga waxoon teel a yeewu de. baax na waaw amul. Ah, man damaa nelawul ba yeewu wala. nga ne. nelawu ma. nelawoo sama gars yi nelawu ma ba yeewu billaahi. ndax nelawoo. wóor na yàlla man dama nelaw su ma amee combat dama nelaw guddi. doo nelaw guddi. man gëj naa nelaw de sama bët yi boo ko xoolee nii gisoo ni mu mel. ah. ay trois jours quatre jours yi nelawu ma. ah mais saa loolu dina doon wax ne quatre jours nelawoo. wóor na yàlla. signature ba laa gëj a nelaw dañuy signature ba nii may waxee yow. ah billaahi. salaamaaleykum. tey dangay gi noonu. yàgg na. gars yi kay di xam nga saafonte. waaw. mu war a préparer nga xam ni mooy arène nationale. loolu du yomb. loolu c'est autre chose. te Ndiaga Dolé si biir arène nationale. Ndiaga Dolé rek war berek. ah daal kiin ki ca kiin kiin caag. dina doy waar. yéexee. mais loolu dina yéeme dina am instant ordinaire. daa ilaha illallah. incha allah. daa ah. ilaha illallah. dafa doole gi noonu ak ma fiyaa bi ah. kii may ñax a doole mooy bëre tey. boo gisee combat bi. Ah, combat bi jeex na pare. waaj nañ ah. def nañ lépp. def lépp parce que da ngeen a pare fépp daal pare nañ bu yàgg. ah bilaay walaay. moo tax rek a ci des. moo tax li kese si des. waaw fa lañ toll si wàllu mobilisation. mobilisation bi képp pare na xanaa gisoo. waaw ñax a doole kese réew mi rek réew mi rek. réew mi rek moomul li kenn mënul li. waaw. moo la ñuy topp ñu. Ah. ah waaw mooy gerte kilifa mag yi. war a xool jamaa bi laakaan suñuy xeexee. ah suñuy xeexee. suñu xeex dafay dóorum daal. doomu jaxaw day ñëw rek. yoroon jàngoon nang bu dee noo. moo ngi naan moo ngi mooy saxaxu kalaaf mais loolu tamit est-ce moom sarax amul si laam. waaw doole moom daal. li liggéey ak li moom. ah amul fu kalaaf neuf points lañ soxla. neuf points ci kàttan suñu borom. noppi na. Eh, jaga doole eh, ngi noonu mbokk bon. tey jugee bi nag waroo bàyyi. c'est bon nit ñi nag yow joo yow xam nga bàyyi sa jikko yu ñu bàyyaan gii. danga ngi noonu de. topp topp ma dem gaala. kan topp topp ma ñu dem gaala. yow gaala booy ma ñaxa laa waxal. danga ngi noonu de. kii laa waxal dama ko téeméer ma léegi. waaw dama jëloon léegi di gaala yow. ah tamit jàmbaar yow yow kii war a kii daa war a dem xare ji. Ah? jàmbaar nga di góor. Ah. ajana. tawfeex jaxa ngi noonu de ndijaay ah, bu dof mel loolu moom loolu moom doy na waar bi ah boobu baaxul njaga dégg naa di tooñ de waa nante baa ngi ma ñëwoon. noonu. mbokk internet li si réew mi TV. mbokk internet li si réew di char bi nañu seet ci waay première image Diaga war a bokk si kalaaf bi nga xam ne ni moom la Doudou Sané gërgëd ak booy jaxaaw jaxe gi noonu booy topp ko laay laay la laa jaxe gi noonu de jaxe doole cey combat bi tey cey arène nationale tey dina neex dina yëngu arène nationale tey dina neex dina yëngu cey njaga ngi noonu doomu jobal doomu jobal du ragal Oumar li nga gaa yi la la la gaa yi waaj togg ci nii. yaa ngi noonu de. du waaj a def mën a yi. maire yaa ngi si liggéey bi. maire war a añ bi de ah njëkk ah. gaa yi ay dëkkandoo yu baax lañ. waaw ndeysaan. dara boo bëlee ñu. ndeysaan. gi noonu. waaw mbër. waaw mbër kon yow si kanam. jël naa mairie gi noonu mbokk yi.